tey xam ngeen ni ni ki démb la lutte sénégalaise euh, naqar la fanaanoo muy génn ak àdduna ki nga xamee ni mooy kenn ci champion yi fi nekkoon ñu ràññee woon ko jamono ba mu ciy toll muy euh, le champion Moussa Dioum ñu toog ak ko xam ni xarit la ci moom wante tamit dëkkandoor la ci moom ñu bokkul aussi di évoluer ci lamb ji le grand papa Sow euh, dañuy commencé di la masaw di la jaale bu baax a baax ki nga xam ne ñu jógee muy le grand ñu leen ziar di leen ba leen ziar yi ñëpp di leen delloo moom Moussa ñëpp la wax yàlla. ñu ngi koy jaale Sénégal di ko jaale monde làmb particulièrement famem tamit ñu leen koy jaale ko xam ne daal euh, tiis bu ñëw dal suñu kaw la yëfu yàlla suñu borom la ah mais xajoon na fi wax dëgg yàlla Moussa nit ku baax la woon ku yëg nit la wax dëgg yàlla ah, mais àddunaa ni ñu mel na ko àddunaa mel noonu quoi àddunaa ni ñu mel lan nga ñu mën a wax ci gannaaw bi nga xamee ni ay at ngi nii gisuñ ko ci lamb ji pariwul tamit lañ koy gis ndax jotoon nga yëg feebaram ak li war waraloon absence am aussi bon yëguñu woon feebaram nag waa man bett na ma man de génn àdduna dem bett na ma lool wax dëgg yàlla. waaw génn bett na ma lool waaw. mu nekk sa dëkkandoor ngeen yàgg. ku ne Papa Sow jamono ji nii li nga xam ne mooy parcelle lan ngay fàttaliku vraiment en dox de li nga xam ne yéen a ngi woon di ci yëngatu mais li ngeen bokk dëkkandoor lu la marqué ci moom. waaw moom Moussa Diagne moom ku ne lu la marqué ci mooy fu mu toog moom kenn du kenn du ñëpp ñëppay ree nitu jàmm la. nga xamante ne dafa bëgg bëgg mbalagante bëgg tooñ quoi. nit baax la nit ku daal. ku baax la nit ku yaatu la waaw loolu daal laa mën naa ko wax ci moom nit ku baax la waaw nit ku saf xorom la ku lu waay xewle bu ko yëgee moom dina ñëw tayaw nit ku baax la moom. mu nekk mbetteel ci askaru Sénégal wante tamit ci monde lutte sénégalaise bi yëpp mm-hmm. tamit naka nga yëgee xibaar bi. waaw xibaar bi comme ñëpp ñu ko yëgee rek de man comme nii rek gars yi gis ko si wax ma ko man mun ma ko woon gëm quoi. expliqué mm-hmm. après woo ma grand jili woo ma ma xam ne kon ah li ñuy wax du ay naxaat ay poisson d'avril kon dëgg la mm-hmm. ah, ko euh, yàlla bu ko cat jiitu ci bàmmeelam yàlla xare ko àjjana ah, te mu rëcc fi doon def lépp incha allah. lan nga ñu mën a wax ci ay qualité en tant que lutteur tamit ñëpp xam na nii ba mu ciy toll tamit suñu borom mayoon na ko ci génération am. Mhm. mu bokk ci ñi nga xamee ne bari woon lu mu wane woon. waa xam nga sport moom chance da see am mais Moussa Dioum man gisuma ku takk ngemb ku ko dàq bëre ku ko dàq xeex ku ko dàq ambiance lépp dafa daje woon ci moom mais nag yàlla moom mooy mooy mooy mooy mooy ci nit ki. mais lépp lu mbër di war a am rek boo ñëwee si Moussa fekk ko fa ba mu ba mu doy mais nag yàlla moom mooy tracé carrière nit ki quoi waaw. alors bu weesoo li nga xamee ni mooy làmb bi ngeen bokk sa dëkk Ndoor la ndax am na jëflante boo xam ni doon nga ko am ak moom mu marqué la ci moom gannaaw bi nga xamee ni jóge na fi. waaw en dehors de làmb. moom laay wax ne nitu jàmm la Moussa Dioum lu nit mës a xewle bu ko yëgee day ñëw. loolu moom ñëpp mën nañu ko seede lu mu sax xewle amul waxuma sax ay xew yooyu noonu mais ci wàllu làmb rek bu amee combat ak ay open press ku mu yëg ni am xew nga mu ñëw na taxaw sax. da jàppale mbiru parcelles yi. ah si moom borom baax la quoi waaw waaw. baax la quoi. kon mën nañu wax ni en dehors li mu nekkoon parcelle tamit ku daan def ci yéen dara da ci daan boole dooleem ak xalaat. Moussa Dioum doyen la ci làmb parcel Moussa Dioum mënoo mënoo lim mbëru parcelle doo ko ci boole. boo nee benn ñaar moom nga si topp boo nee benn ñaar Moussa la Moussa Dioum la ci làmb parcelle. wax dëgg yàlla te wane na ko xamal la parcelle sax mais ci làmb làmb Sénégal yëpp doyen dafa marqué empreinte am quoi. mu nekk perte bu métti lan ngay dénk fansam yi wante tamit ñi nga xam ne ñooy famille tamit. waaw mu muñ muñ rek muñ rek yàlla moom kenn du xëcc moom ay programme pare na ko démb tey soog a ñëw. waaw yàlla moom noppi na démb tey soog a ñëw lu mu def rek dafa gën lu mu def rek dañ koy nangu ñaan ko rek yàlla na ko yàlla xare àjjana te jël ko ay bàkkaaram te yéex a allah merci beaucoup merci jaajëf jàmbaar. tey nag ñu ngi taw koo xam ne nii moom fekk na lépp ci parcelle di Père Ndiouga a wax lu bari ci mbër yi parcelles yi ginnaaw bi ñu ñu ngi lay jaale li ñu bokk. ñu delluwaat sant yàlla rek. julli ci Seydina Mouhamad sangu sang si. Euh, di siyaar euh, àdduna bépp rawatina Sénégal ak diaspora bi ak ak làmb euh, di siyaar xalifa yi nu am Tiwaawoon Touba di siyaar euh, sunu président bi yàlla jox yan bi ñuy ñaan yan bi tim ko tamit tegu ci boppam di euh, siyaare aussi sunu président sunu ministre sport Makhtar Ba ak bépp axlu làmb ak Parcelles Assainies 1 ba 26 ak képp kuy dund làmb tey nooy làmb te bëgg làmb ñoo ngi lay nuyu di la siyaar ci weeru tedd wi di ñaan weer wii ñu nekk nii yàlla na weeru ngënal ci ñun di weeru mucc ci ñun di weeru xéwal ci ñun. di ñaan yàlla bu mu suñ mujjeelu koor. Mm. may bal wax ñëpp di bal ñëpp wàq nag bal naa man ñëpp àq ku ma amee làq rek man juba bal naa la di balu ñëpp àq nag tey ñaan it yàlla bu ma kenn toppati ci àq waaw xaadim ki fi dudd loo ñu mën a wax ci moom xam nga ko. xanaa muy ku baax di ku yaru. di ko baax di ko yaru ku dal ku teey ku xëccoowul njëkkantewul ku joxe cër ay mbokkam ñàkkuñu nag Sénégal ñoo ñàkk. Euh, dafa am ñoo xam ne dañu bëgg mbir mi takk njàmbu mais duñu mbër mbir danga ko bëgg necc mais fekk na du sa cër mbër ak bëgg ko du benn yàllaa ko su nattoon mu newoon ci mais yoroon di koy mbër di koy taalibe la yoroon moom laa xam ci moom comme gisa lay jox ci respecté la jox la sa wàccuwaay sooy wax ak moom sax du la woon euh, deretu mbër deretu kersa la lay woon ba li nga ba wax ak moom sax doo ko wax ak moom man antaam na lañu waxtaan man moom ba tàyyi mais mënul am père mën ko ñëwal kër gu ñu waxtaan père mën ko ñëwal kër gu ñu waxtaan kon donc Moussa Euh, ay bokkam ñàkkuñu ko Sénégal ñoo ko ñàkk mais ñaan fii mu nekk kon jóge fi fa mu jëm yàlla na ko gënal. musaa yàlla na nekk ganu yàlla ta ba ne nekk ganu malaaka ñu ngi fi bàyyi yàlla nañu fi yàgg lool dese fi di ko ñaanal ah yàlla def nga na metti na ma de <laughs> waaye nag diis na de benn dafa ko sant yàlla ko ñu sant ko yàlla daal man bii laa toog ak eh, Ibou Diouf suma buntu kër bi ñu toogee ba noonu rek waxtu reer yooyu. Mm-hmm. ñuy waxtaan ci àdduna rek Lamine Gueye woo ma ne ma Moussa dafa wàcc liggéey ma ne ko kañ kañ la feebaroon mu ne ma yàgg na tëdd nag mais dafa siiwul rek waaye yàgg na tëdd tout récemment daal la affaire bi attaqué ñu yóbbu ko yaa suuf yàlla dogal mu noppalu benn 4 jours dafa def wala 5 jours gën gaa bëri mm-hmm. nii daal laa ko dégg. diis lool nag wax dëgg yàlla mu diis lool wax dëgg yàlla. kan moo la gën a marqué ci Moussa loo xam ne dund ngeen ko tudd da ko fàtte. waaye xanaa cër bi mu ma jox rek xam nga man man cër laay jàppee nit mais du def def Moussa dafa naa mosuma may junni mais daf ma jox cër boobu daf ma regg man man cër moo ma regg mais du def def yëg man moo may suur man te loolu joxoon na ma ko ba mu mat sëkk ba ma yëg ko donte yoruma ko woon man su ma ànd ak Moussa ci cumukaay mu su ma ko causé ci biir làmb mais joxoon na ma cër boo xam ne danaan waxtaan ak man ba ko xam xamal ci làmbu am na tollaay boo xam ne dootu xëcco champion wala wala giiroo seet noo amee dara ci làmb la am na foo xam ne foofa tollee seet noo amee dara ci làmbu la mais dootu looy xëccoo wala looy giiroo Moussa suma fils la woon sama doom la woon bu wér ma wax ko rek yàlla tax na parce que dama woor te kenn jarul ma fenn mais Moussa daal maa ngi ñaan fii mu jóge fa mu jëm gënal ko fuuf ay bokkam ak ndeyam ak i frère am na nañ fi di ko ñaanal. amiin barke Seydina Muhammad. amiin jërëjëf maa ngi leen di siyaar nag yéen ñëpp nag. yéen borom siid yi leen di siyaar bu baax a baax. di leen begee ti leen ñaan ngeen gudd fan te wér. ndax tey jii fu suñu wax ak yéen la. amiin kenn mënut a dem bàyyi leen. kon maa ngi ñaan siid yi yàlla nekk ay télé. barke Seydina Muhammad. ko Seexu Tijaan sama wasila. jërë ngeen jëf. jërëjëf mën na noo wax ne fekk na lu bari ñu ngi lay nuyu di la di la jàllale mbokk. maa ngi leen di siyaare ci weeru koor bi di leen vraiment euh, maanaam gërëm tamit ci li ngeen di maanaam véiculer information yi. Euh, tey yéen ñëpp ngeen déplacé ñëw ci jëmm ji nga xam te moom moo ñu dëdd tey muy euh, muy Moussa Dioum. xaman nga ko. xam naa ko parce que Ndiouga wax na léegi la personne man mbër mi laa gën a xam maa ngi gàdde en image. ba muy bëre ak Khadim Ndiaye je crois que c' était en 2008 face à face bi gën a rëy dans l'histoire de la lutte ci période boobu moo Khadim Ndiaye ñoo ko def fii ci stade bi stade bii stade municipal bu parcelle Moussa Sy moom moo nekkoon le parrain muy muy presque face à face boo xam ne ba léegi nañu duñ ko fàtte mu dem ca combat ba nag yàlla jox ko fa ndam d'ailleurs maa ngi dégg sax information ñu ne Khadim Ndiaye moo ko daanoon déedéet moom moo daanoon Khadim Ndiaye. Pape Abdou Fall moo ko tëggoon. Pape bi effectivement ñu ngi ko bëre woon stade Demba Diop et d'ailleurs c'était le premier combat bu bu Pape Abdou Fall tëgg stade Demba Diop en 2008 Moussa Sy était le parrain mu daal di koy daan mais euh, Moussa boo ko xool presque ci claf bi lañ ko la relevé wu plan claf bi. clafu Gaston bi. mu def fa ay performances yu extraordinaire 2005. 2008 2008. 2008 waaw 2008. 2007 2008. ñaari calaf la woon ñaari calaf voilà calaf bu njëkk moo doon 2005 2006. bële di 2008 effectivement. mais mu def ay performance yoo xam ne yu extraordinaire bo mbër nag xam nga parfois da ngay am euh, des hauts et des bas vraiment mu tolloon ci benn période boo xam ne nii euh, xawoon na jafe tuuti ci moom. bo mais quand mu ñëwaat mu ñëwaat ba ba ba ba daan fi ame dem ah daan ko fi jële bu rëy rëy rëy rëy. retour ba waaye moo daal di marqué quand soo son retour mais li ma wax rek mooy euh, vraiment mbër la mbër la dans le vrai sens du mot amoon na ay jafe-jafe ci làmb mais nag terewu koon quand mu garde sa dignité parce que c'est un très grand champion en tout cas ñu ngi ñaan yàlla suufu Touba euh, oyof ci koom vraiment sëñ Touba teeru ko euh, yàlla xare ko àjjana njaboot gi yàlla teg fi barke en tout cas daal làmb ñàkk nañ di ko jaale le ministre des sports di ko jaale aussi tamit mon ami et frère Bira Sène le président du CNG di ko jaale vraiment euh, waaw le Matar Matar ba le ministre des sports di ko jaale ñëpp daal vraiment Sénégal daal ñoo ñàkk le monde de la lutte et puis xam naa ne bi mu am rek mooy lu tax bëriwul arène nationale parce que daf ko doon rêvé man buñ dajowaar mën a ma père mën a mën bi dama fa bëgg a bëri ma na ko def mais tey yàlla moom ñu